بنعمة ربك بمجنون moo yaatal mbindum alxuraan dafa def benn exposition boo xam booy dugg euh, yaa ngi koy gis ñi nga xam ne ñoo jiitu ci concours yi liñ bind ñu gaaral ko fa ak ñi nga xam ne ay mag lañ bind ay kaamil ci mbind mu yéeme boo xam ne mu taarixee la moom itam ñu wane ko ci bunt bi ngir boo duggee gis ni mag ñi effort yi leen daa def ci alxuraan sonn ci sonn koo xamante ci ni jéggi woon na dayoo ba tey jii tax ñu man koo tiim man koo jàng salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, ngi nuyu mbokki jullit yépp di nuyu mbokki taalibe yëpp euh, fas leen yéene wan lenn ci mbindi mag ñi ci mbind mag ñi ak lenn ci mbindi gone tey ngir lan ngir ñu wane ndax dañoo wax yaatal mbindum alxuraan bu ñu waxee yaatal mbindum alxuraan nag kon dafay tekki ne mbind nekkoon na fi naka jekk waaye ñu gisoon ne mu dem ba tàmbalee wàññiku ñu ñëwaat ci gën koo yaatal bi ñu ñëwee ci gën koo yaatal nag ci lañ xalaat ne kon faaw ñuy wane la fi nekkoon bu njëkk ak di wane li fi nekk jamono ji baxan fan la mbir yi toll loolu moo waral ñu def exposé bi ñu tànn ci nag ay mbind yu am am solo ci mbind mag ñi yoo xam ne ci ay këyit lañ ko bind waaye dem ci daara yi nga xam ne it ci jamono bi it ñu ngi ci xale yaa ngi ci daara ji di jàng ñu dem jël fa ay mbind ngir wane ko su ko defee mbind yi xam naa dañu koy wane ci écran bi bu ko defee ma koy mën a gis di mën a leeral mbind mu nekk kan moo ko bind ak fan lañ ko jëlee ba sukkandiku ne lii mbindum diw la. li wane mooy mbindi candidat yi nga xam ne ñoom ñoo jëloon édition. deux mille euh, deux mille dix neuf waaw bii moom euh, Cheikh Anta Gaawaan Gueye moo ko bind mbind bi ñuy wane moom moo jëloon première bi euh, ci année deux mille dix neuf bi mbind mi tamit Mohamed Touré Mohamed Touré moo bind lii moom it moo jëloon édition deux mille deux mille dix bi bu ko defee exposé bi nag mbind mi mu jubloo wane moom moo nekk nii su ko defee da ngay tàmbalee ca ca ba njëkk rek mbind mi ñuy njëkk gis mooy mbindum Serigne Mamour Anta Sali Mbacké bu ko defee mbind mi ñuy wane mbind mi muy wane moom mooy mbindum sëriñ maxtaar xadisi mi nga xam ne moom lañu tuddee bis bii euh, moom it lenn ci ak njabootam ñoo ñu jox mbind mi euh, ba wax nañu ne lii ab kaamil la bu mu fi bàyyi woon ñu di ci jàng mbind mi muy wane euh, mooy mbindum sëriñ muudu Habib Mbàkke mbind mi ci topp di ab kaamil boo xam ne soxna May Mbàkke moo ko bind moom it mbind mi mbindum sëriñ Boussa Ilimaan la mbind mi mbindum Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke euh, mbind mi muy wane mbindum sëriñ Maxtaar Bousso sëriñ Maxtaar Bousso ak sëriñ Bousso sëriñ Boussa Ilimaan ñoom it doomi sëriñ Aafiya Bousso lañ mbind mi muy wane mbindum sëriñ Gédé Mbàkke la sëriñ Gédé Mbàkke way juru sëriñ Sam Mbàkke mi doon wax léegi moom it mbind moom am mbindam la mbind mi muy wane mbindum sëriñ Ibrahima Jaxate mi nga xam ne mooy wayjuru sëriñ As Jaxate mii bind kaamil bu siiw bu tasaaroo boobu bu rafet macha allah euh, sëriñ Ibrahima Mbacke wayjuram moo moo bind mbind mi ñuy ñuy ñuy jàkkaarool ci écran bi nii waaw waaw mbind mi muy wane tamit boo ko gisee xam ne mbind mu yàgg la muy mbindum maam Thierno Birahim Mbacke borom daarul moxti moom it moo bind lii waaw mbind mi muy wane boo ko gisee it euh, mbind mi mbindum sëriñ Touba xaadallahu maxtaara la la moom it ñu jëlee ko. ci ay loxo yu wóor ba sukkandiku ko ba xam ne am bindam la bi ñuy bi ñuy waajal pour wane aliwo yi bi ñu koy waaj exposé dafa am mbokk yu bari di ñëw di laaj aliwo yi aliwo naka lañ ciy bindee ak buñ ci bindee juum naka lañ koy dindee di ko effacé mu dafa mel ne loolu tamit xaw na leen a jaaxal te xamuñu ne nit ki lu ci ëpp ci daara yi ñi baaxoo di bind kaamil ñaare balaa ñuy mën a bind ci kayit faaw ñu mën a bind ci alliwo jërëjëf sëñ Abdou Khoudous Sylla euh, dafa mel ne ni nga ko wanee sax jàll na lool ndax euh, taxawoon rek wax ne mbindum mag ñaa ngi fi doy na sëkk ndax loolu day wane ne euh, mbind lu am démb la waaye li ñuy def nii tey itam xam naa jamono ñëwaat bañ koy yaatal waaye daf fee nekkoon moo tax mu mel ne C3S waxut ne day indi mbindum alxuraan waaye daa wax ne dafa koy yaatal yaatal nag mooy li fi nekkoon ñu gën koo méngalewaat ak jamono gën koo indiwaat ba mu gën ñoo jege ci loolu la nekkoon di ko def exposé banque ngi ci bitti koo xam ne mën na faa jaar yi mu doon wone yëpp dana ci tegal boppam ay gëtam ko sëñ Abdou Khoudoss waxee muy exposition bi am na solo waaye dañu am ay gan ñoo xamante ni itam euh, mooy ñi ngeen di jàkkaarloo ñu war a itam ñoo xam nit ñi dañuy jàkkaarloo ak ñoom bu ko defee kon ñu bàyyi leen ñu bind en attendant hmm. euh, ñu ñu ñëw nag euh, ci kanam tuuti wax leen suñ mbokk yi ñooy ñan ak li nga xam ne moom la ñuy def defe naa ki doon dégg bind mbind ngi nii ñaari bindikat a ngi nii jàkkaarloog yéen ñoo xam ne kenn ku ne am na kiimaan ci li muy def mhm. loo xamante ne danañ ñëw ci xamle leen bu baax sëñ Mbàkke kon dama lay ko wane incha allah bu ñu si àggee kii sëñ Abibou Diop moom présenté nañ leen ko fi yoon incha allah danañ ñëw mhm. mooy kee xam ne borom bi daf ko natt ba wax jàppandiwu ko waaye mu mokkal alxuraan di ko jàngale en même temps waaye man ko bind te du ko xool daanaka chaque année mu def ay kii yoo xam dañ koy gis kii itam suñu mbokku iranien la nekk mudiru jaamiatul Moustapha al alamiya faron Sénégal nekk Mermoz moom itam mu gis ni calligraphe bi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy bind dafa yéeme waaye moom itam mu am loo xam ne jekku na ko bëgg ko ñëw gaaral ko nit ñi itam ñu xam ne Sénégal ñu ngi avancé si bind waaye suñu bokkee Iranien itam ñu ngi liggéey si mbind ñoom itam danañu bind directement ñu exposé ko wane ko mbooloo mi euh, sëñ Mbàkke loolu moom mooy sababu ñaar ñi ngeen di jàkkaar loolu. incha allah ci kanam tuuti danañ leen woon liñ bind defe naa euh, jéego bu rëy ngi noonu te ak yokkute. Hmm. ndax tey euh, kenn ci waa bitim réew di doomu réewu Iran. ñu dem yëgal ko mbind mi mu rafetlu ko yéem ko ak ni ko senegal di defee waaye am yéene moom it feeñ ci image bi ñëw indi moom it participation ci mbind mi loolu liggéey bu rëy la anta bi ni'mati rabbika bi majnun